mbokki murit yu cheikh ahmadou bamba xaadimu rasul yi nekk Novarasa Novarasa nag ci fàttali moo dal woon ñetteel bi yoonu bisu xasayit bu Touba Brésil jël nañu avion daw ay waxtu yu bari daw fu sori ngir bésub seexul xadim bi nga xam ni moo doon am Rio de Janeiro ak mbégte mu yaatu ànd ak ay xar kanam yu leer yor ay jukki yit ci biir avion yi jàng ko wàcc nak nag ci Rio ngir fas yéene dundal bés bi nga xam ni moom lañu ñu jagleel sëriñ bi ci xasaayid yi ci Brésil ñeenteel bi yoon bi ñu wàcce nag Cheikh Abdou di jàmbari Cheikhul Khadim liggéeyal ko tedd ki ci média yëkkati na nag ay kàddu yoo xamee ni rek dafay wane yëg-yëg bi mu am ci biñ jëlee ab yoon ba wàcc nag fi nga xam ne moo di Rio. jërëjëf euh, jawriñ sëñ Gora ñu am mbégte lool rek euh, comme niñ ko waxee euh, noonu nga ko waxe muy ay waxtu yu bari yoo xam ni mm, taalibe yi daw nañ ko. Euh, nekk ko ci avion yi ñu ngi ci bus yi ak seeguñ lépp rek ndeysaan ngir euh, jëmmal rek euh, bisub Serigne Touba bi nga xam ni moom la ñu amal fii ci Rio de Janeiro comme noonu nga ko waxee nga xam ne at mu nekk ñu amal ko ren ji quatrième édition bi daam fii ci Rio de Janeiro ñoo am ay mbégte lool yoo xam ni kawe na suñu njort ndax maanaam comme ni ñu koy waxee rek jàmbaar yi ngay gis yëpp ndeysaan daanaka dañoo fanaanee daw ba ba set lépp rek ngir jëmmi xaadimul Moustapha ji ndax coono bi ñu doon daj yëpp yëguñ ci dara ngir xam ni cheikh bi dajoon na lu ëpp loolu di ñaan sunu borom subhanahu wa taala ñi nga xam ne ñi ngi ci yoon wi te accès guñ suñu borom agsi leen bi jaaxi rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam dañ daje cee ngërëmal xaadimul Mustafa Euh, xam naa rek mel ni ñu ngi topp ci média bi euh, yoo xam ne yaa ko doon def ak jëwriñ mu mel ni it kon édition boo xam ne rek accident dafay méngoo ak li nga xam ne moom la ñuy wax ci tayam ju nekk dafay gàccal démbam mbiram mel noonu tayam ju nekk dafay gàccal euh, démbam ndax dafa am lu jafe muy liggéeyal subhanahu wa taala ba làq ngërëmam ci anam boo xam ne du kenn ku ko ci fekk ci ngërëmal sunu borom nag képp ku ko làqaale àlakulial noonu rek lay demee bés bu set rek sa tey day gàccaal euh, sa démb moo tax euh, bii jàll gis nañ ni mu mel waaye bii ñu jublit gis nga ni mu mel àlakulial te it mbir mépp rek noonu lay demee incha allahu taala mbirum Cheikhul Khadim moo mel noonu sëñ Gora jërëjëf jëwriñ sant nañ la bu baax a baax ci liggéey bu am solo bi ak it euh, taxawaay bi macha allah yal na la suñu borom gën a kàttanal bi jaay rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam jërëjëf jëwriñ